la nga ñaanal leen daa wax ne naa la wax na nga ñaan ñaan goo xam da nga koy ñaan ci doon gi nga doon jëw ni Cheikh Khadim nga ñaan mu nee na mi ngi ñaan nga ñaanal ko Cheikh Khadim yow mi nga yàgg ci te dara bañ laa dog te da bañ la ga bañ la gal ba yéen joo am ci Cheikh Khadim ak pas-pas boo ci am moo àgg na ko bëgg te ñaan ko yow nga ñaanal ko te ñaanal ko ci njaboot gi ba yéene ci yéenam ci mën a ndax topp nañ ci moom te fëkkatu luñ ko yàkkamti wuñ ko muy sëriñ Cheikh may ñi nga xam ne mooy jëriñu kër mu muy sëriñ Cheikh Mbacke Madina ak rakkam yi topp ci moom sëñ Abdourahmane na ngi nii teewal fa kër jabootu ko sëriñ Cheikh Fane ma gépp ñu gis ñëpp kenn ko ne sa doom teew na fi nga ñaanal leen seen yéene ci ak lu leen di may ngërëm lu bàyyi ko ci yow te buñ ko amee am ngërëmal sëñ bi nga ñaari leen ba loolu ñu mën ko am ndax dara du leen jëriñ lu dul ngërëm li te xam na ngërëm mënut a ko fenn ci sëñ Tuubaa lu sa jëm ji ngir yaa ko fi ku fi mas lam doon ci yow jox ko ba jo ba mat sëkk te ñu ñëpp teg nañ seen bët ame loo kenn bor ci ñi la mag kon ñoom mënuñ laa fayee lu dul fab seen lépp jébbal la ko mu am liggéey bu mu doon liggéey moom njaboot gi bi mu wut na bëgg sax ndax jamono mbayiwu waaye moo nu mu mën a demee nañ ñëw jox la ko te nga ñaanal leen te ñaan jamono ji sama borom soppi ko ndax ak soppi ko war na ci te boo ko waxee sëriñ bi dana ko def kenn nattab li ne boo ne sëñ Bamba defal nangam dana ko def ndax ku fi ne loo ko sant mu def ko te ni nga fi nekkee sëñ Tuubaa gërëm na la ci sëriñ bi yàlla nga fi yàgg yàlla na fi yàgg sa yéene yi sëñ Tuubaa ni nga ko bëggee ju mën a doon na àgg mais bu ko deseel jénn yéen yi itam nanga nga deseel sëñ Tuubaa yéen yu bari yu ne ci kanam yoo war a def te lu ci ne na nga fi ne ba def ko te ñaan du ko yow mu wax na njabootam gii nga ñaanal leen fañ ko war a teg ak nañ ko war a def dese nañ ci dara gannaaw muy sëriñ Moussa mi ak sëñ Cheikh mii di kilifa yoon wi ak sëñ Abdourahmane mii ñu wax ne njaboot gépp daje nañ ak jëwriñ yi aju ci kër gi la am ñu dajale ko teg ko ci loxoom ngir mu ñëw teg ko ci sa loxo mu wax na nga ñaanal doomam yi te ñaanal sëtam sëtam bi ndax lam warloo ci ay baayam warloo ko ci pénc ma ma nga ca muy Moustapha moom sëñ Mbàkke Soxna ne na nga ko ñaanal bu baax ndax xam na lim doon te fa te wàccu ko nangu naa toppe lim li ay ay kilifa moom nangu nañ ko jox kon nag bëgg na ku ko ñaanal mu bañ a am menn ndog loolu daal mooy wax liñ fi indi nag téeméeri million la ak juróom benn fukk ak juróom yu teg million bu manqué ñaari junni nee cant gu rëy a rëy. li ma ci li ma ci sant mënu ma lim. nee li mu ciy sant mënu koo lim. lu ci ne benn bu ci nekk ñor na ko lool. ba tax ba tax na. jëf ji rëy na ji rëy na ci moom lool. jataay bii màgg na ci man bi màgg na ci moom lool. kon. nee na kon. dafa mel ne. dafa mel ne. bu ma toogee wéet. su ma toogee wéet. jataay bii. jataay bii. kenn fekk bett ma fekk fa. kenn bett ko fekk fekk ko fa. damay am dafay am mu rëy. nee dafay am mbégte mu rëy. waxuma laa nag nii mu demee. waxuma nii mu demee. yàlla mi bind rek. yàlla mi ko bind nag. moo xam taxawaay bii ni mu deme ci moom. nee na moo xam taxawaay bi ni mu demee ci moom. waaye nag maa ngi koy gën a seereel. waaye nag maa ngi koy gën a seereel. maa sant bu baax a baax a baax. nee ngi sant bu baax baax a baax. ci jëf ju rëy jii. ci jëf ju rëy jii. Eh, dëgg la jëfi sëriñ Touba la. nee dëgg la jëfi sëriñ tubaa la. nee na sëriñ Touba rek ko moom. waaye nag tudd gi ñu may tudd. waaye nag tudd gi koy tudd. ba tax jataay bii am. ba tax jataay bii am. loolu mun ma koo sant man sama lam xëy xëyul sama lam. nee loolu mënu koo sant xëyul ci aw làmmiñam dama koy teewul sama xol rek. daf koy teewul rek ci xolom di ko seeral suñu borom bi nga xam ne mooy dafa dindi. di ko def seeral suñu borom bi nga xam ne mooy dafa ko dindi. di ko seeral sëriñ bi. di ko seeral sëriñ bi. di ko seeral sama kilifa yu baax yi yi fi nekkal. di ko seeral kilifa yu baax yi mu fi nekkal. di ko seeral sama mbokk yu baax yi. di ko seeral mbokkam yu baax yii yëpp. ñeneen ñi xam ne daal sant naa lool. na ngeen xam ne daal sant na lool. sant gi nga xam ñëpp a bokk. nee sax waxu sant gi nga xam ne moom ñëpp a ko bokk. muy suñu borom mi nga xam ne moo muy suñu boroom mi nga xam ne moo ñu bind. boole ñoog sëriñ bi. googu cant moom. googu cant moom. ëmb na lépp ba noppi. waaye nag ay cant da cee dolleeku. waaye nag ay cant da cee dolleeku. muy jataay bi. muy jataay bi. lu rëy lu rëy ci moom la. yàlla miy def day yàlla miy def day moo xam li muy def. moo xam li muy def. waaye man de bu doon man man man sama mënu man bopp kese kese. nee na bu doon mënum boppam kese kese. danaa jàpp ne bi jomb dinaa jàpp ni jotaay bi jomb na ma. nee na moo loolu mooy li nekk ko. dara jomb. sama ci guy. nee na xolam sedd na guy. sama xel dal na rëtiix. xelam it dal na rëtiix. sama yaakaar it na. dolleeku na. baat yi ko seereel rek. nee na baat yi mu ciy boole koy da leen koy seereel mu leen di seereel. maa ngi maa ngi gën a yeesal sama jaayante. mi ngi leen di seereel ne mi ngi gën a ak jaayanteem. ak sëriñ bi. maa ko seereel bu mi ngi leen koy seereel bu baax. di leen seereel ne itam. di leen seereel ne itam. maa ngi gën a fëddali sama laxasaay. mi ngi gën a ak laxasaayam. fas yéene koo ànd ak yéen. fas yéene koo yéen ak yéen. àndin woo xam ni. woo xam ni. na mu gën a selle. na mu gën selle. gën a rafete na mu gën a dëgëre na mu gën a dëggoo noonu la koy fas yéene àndee ak yéen nee na sedd na bu baax jërëjëf jërëjëf waaye nee na kàddu yi rek la ci bëggoon nee waaye mënut a wax li ci xolam jërëjëf Sénégal bañ amee Serigne Touba lañ amoon jàmm dara mënatu koo dindi loolu na sëkk waaw jërëjëf waaw seen chaîne wilaya tv gaaw leen gaaw ngeen abonné bés leen cloche bi ngeen doon membre ba faw dara leen umpati si information général rawat na lépp lu jëm si wàllub diine